asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Issa Dieye secretaire général du syndicat autonome démocratique et indépendant des chauffeurs du Sénégal où les Jakarta sont affiliés au syndicat accompagné de l'autre syndicat SACGIS le syndicat autonome des conducteurs de Jakarta du Sénégal et l'intersyndical tey moom moo toog di wax ci problème mu Jakarta

dem nañ demander ñu ne dikkagul à notre grande surprise la fois passée Momad Ndiaye daal di ñëw ne demander président sant Abdou Diouf ne pourquoi xaalis bi lañ bëgg xam fu mu tagee ñu laaj président mu ne jox nañu joxe nañu ko gouverneur yu jóg ne xaalis bi egsiwul quelque chose de grave lu toll ne président de la république au sein de ton gouvernement ñuy lay jox ay fausses nouvelle si jakataay ñun ñoo dul nangu ñun ku ñuy mbubboo pourquoi fausse nouvelle liste yi àggul si gouverneur yi ne ñu ngeeg liste yi instant boobu amul la preuve année que ñun suñuy liste demul donc bu waxee au nom des gouverneurs ne wax ne ñoom ñi ñuy choisir c'est la seen liste ñëw mais ñun ñi nga xamante ni bokkuñu si ñoom kenn jël ñu liste donc affaire bi nga xamante ni affaire partisane la moom la nekkee pourquoi nu ñu mënee jël deux personnes yu nekk tribunal ñoo xamante ni ñoom ñu ngi yéeg si wàcc si benn kayit légitimité benn kayit dont tous les Jakataans ne sont pas membre de les associations ñu ne leen dem leen recenser ku nekk di recenser ku la neex ñaa ñu xuloo boo leen di recenser leen mais partisan ku nekk keneen ki du ko recenser léegi kan mooy perte sénégalais lambda Jakarta lambda bi nga xamante ni bokkul benn association nekkul si benn arrêt kenn recensé wu ko à not grande surprise ñu toog le 26 dem bureau gouverneur expliqué ko tegal ko ne ko ah monsieur le gouverneur liste yi la jox matul mën a yóbbu naa liste mais boo yóbbee liste yow borom ñi moom xaalis ne la liste yi matul nag ne yóbbu naa liste boo yóbbee xaalis te seen borom ñëw ne la liste Thiès matul mais doo jël yi mottali li nekk ñëw ma demande ko man. ñi toog si bii Momadou Ndiaye ak Samb ñi ngi toog moom Ndiaye na ko gouverneur bi bu nangoo mën naa d'accord nga jël ay liste nga recensé waat mais du ñoom ñooy sant recensé recensement bi du ñoom du directeur de service des mines moo koy santé il n'est pas habilité à le faire ñun directeur des services des mines mësul def dërëm su ñun te mës ñoo woo si ñoom bi ñu demee ba nga xamante ne maag sama naataango bi toog dem nañ foofu ba si biir directeur de service des mines wax ko présenté wu bu nee organisation amu fii amul waxul xam na ni les organisations am na dem nañ ba yóbbu les accréditations les dossiers wan ko mu ñu defal ñu décharge donc ñu woo Samba Kumba Samb moom le directeur de services des mines ak kan ak Momadou Ndiaye jox ko kayit ne ko dem leen recenser ji et les autres organisations Jakarta bokkuñu si ñoo ñuy recenser ñu leen neex. ñëw ne lii moo nekk Thiès mat na ñeneen ñoo bugg la ñëw deful confrontation des listes wu ko journal officiel ne dinañ recenser bés nangam pourquoi Ndiaye ak Samb ils son censés ñu dire que dañuy recenser ñu gëm leen ça ne se passe pas ainsi administration du doxee noonu bu ñu leen tiital président napp leen gëdd leen ñu bëgg a jël jaay ñu ñun li am mooy que ne la ñu def moom la ñu àndul nañu def teguñu ko si administration dañoo def pour titre benn liste matu fi recensement matu ils n'ont pas recensé tout Thiès recensé nañ seeni nit jox leen ñu yóbbu maintenant le syndicat li muy demander intéres commun lay demander que le président jël ci ay mesures xam ni le directeur des services des mines li mu def du noonu le directeur Cheikh Omar Gueye ñu kaa wax mu naan gouverneur yi lañ sant woon recensé le gouverneur dem nañ fa. ne ko mais ana recensement bi ñun recensement yi matagul mu a yóbbu naa ko te gouverneur mësul génn ñun ñi nekk Thiès mësuñoo dégg communiqué journal officiel la gouverneur de Thiès ne dinaa recenser tel jour ku bëgg recensement ñu recenser la ñëwal tel milieu tel lieu amul donc à l'amiable ñoom lañ defee seen recensement forcément day am trou woo ñoo toog ba tey jii ñu leen di wax ñu naan noo génne nañ xaalis à notre grande surprise le 26 dem nañ fa ñu ngi si communiqué boo xamante ni le ministre ne le 27 jot na liste yëpp yóbbu na ko trésor def nañ dispatch bi or que le 26 avant moom muy yóbbu wax nañ gouverneur ne ko waxal le ministre ne recensement yi matul en tant que syndicaliste averti nañ ko léegi nag ñi ñu joxul dañuy réclamer seen xaalis wa ilaa nañu xam ni du kenn ku ñu joxul buy fay juuti. du ñu jël suñu xaalis la l'argent du contribuable cet argent du contribuable de tous les Sénégalais mooy fay président mooy fay les gouverneurs mooy fay les policiers et les gendarmes kon suñu xaalis ñun duñ ko jël jox ko ñeneen ñu ñu fayal bu ëllëgee ñu ne fayaat leen juuti léegi ñu fay juuti nañu jox ñoom nañ continuer fay juuti ah dinañ def une marche pacifique wane ko suñu bopp lu ñu bëgg mooy le président xam na si àddu na si wax pourquoi ñiy doxalee nii képp ku wax muy autorité bu toog wax ne ñun woo nañu ne kaay recensé amul je le dis ici amul benn papier notificatif buy wane ne ils nous ont appelé ni audio buy wane ni ils nous ont appelé nañu kaay lañ recensé dama àndandoog sàmm di recensé bi ma demee ba gis ne boolewuñ si mu ne directeur service des mines dëkk ne mu recensé bi ma demee ba gis ne boolewuñ si ñi nga xamante ni ñoo nekk si tali bi di daw bokkuñu association bokkuñu arrêt dama stoppé parce que si lañ bokk man ni il faut prendre ñi nga xamante ni nekkuñu ci arrêt nekkuñu si association parce que kenn du ne nit ki dañ koy tànnal association bi nga nekk chaque personne est libre de s'associer fu mu bëgg di taxaw arrêt fu mu bëgg loolu moo nekkoon suñu plateforme revendicative ne xaalis bi ñoo xam génne nañ ko le président il a fait un excellent choix maanaam muy choisir d'aider les Jakarta dañ ko si remercier alhamdulilah def na li mu waa def muy dërëm génn na ko fu mu jublu yàlla na fa yu yàlla jublu mais son entourage liggéeyuñu li wane fële place Abdou Diouf wax na dëgg centre ba ne entourage bi liggéeyuñu buñ demee ba président ses instructions ñu kaa suivre depuis yum ñuy def di làqatu président dama bëgg mu woo ñooñu ne leen ku leen jox ban attestation moo leen jox yéen ngeen mën a wax au nom des Jakarta mu woo kooku convoqué ko ne ko yow mi ma laaj fii ban kayit moo ne yow yaa représenté Thiès loolu moo nekkoon suñu kàddu balaa ñuy jël beneen anamu defen muy le plan B léegi nag dinay addu ba xool ndax dinañu woo et monsieur le président maa ngi lay fàttaliku la le départ de Cheikh Omar Gueye na génne loxoom si jakataay wala nañ ko destituer moog le directeur des services des mines de Thiès ils sont partisans am na lu luub si biir xaalis bu ñu bëgg liy luub si biir nañ ko wax na set wecc. Babacar Ndiaye di le secrétaire général du syndicat autonome des conducteurs de Jakarta du Sénégal affilié à la CESA donc comme sunu naataango bi Issa Dieye ni mu ko waxee tey benn intersyndical lañ taxawal intersyndical bi nag li ko tax a jug njubadi gi nga xamante ni mi ngi fii cees te depuis. Jakarta commencé am fii Thiès si ay luubal la nekk si di la nekk ba fii nii moo tax bépp problème bu fi nekk rek ñooñ ñoo ko fi indi ba tax tey ñu amal intersyndical bi teg ko bala maa commencé si lenn nag damay gërëm la président de la république parce que tamit nit bu la defalee dara yay na nga gërëm ko peut-être moom gest bu rafet la def yéene la am ngir defal ñi nga xamante ni ñooy dawal Jakarta mais entourage am lan war a xoolaat sànq maa ngi koy wax Issa mi maa ngi waxtaan ak Cheikh Omar Gueye di ko envoyé message mu may tontu si affaire recensement yi ma ne ko am na luubal bu ci nekk te ni ma ko waxee noonu laa ko waxee si le gouverneur le 26 réunion bi ñu fa amoon. nee naa ko bu mu sañoon recensement bi day am benn comité boo xamante ni ñoo koy gérer mais man mënuma d'accord ñaar ñi nga xamante ni ñi ngi si yoon te kenn kenn koo xamante ni amul si lenn lu dëgër wala benn këyit administratif boo xamante ni permettre na ko mu waxal si Jakarta yi ngeen jël na ko recenser loolu moo indi problème bi bu ko defee kii ñi mu bëgg a mu recenser leen kay ñi mu bëggul euh, inscrire li du leen bind ba tax na tey problème yii yëpp nu am ko donc danuy tënk kaddu yi rek di lancé benn appel le président de la république liggéey bi nga xamante ni commencé nga ko bu nangu kenn ku la ko yàqal ñun nag ni la koy wan preuve en est que ñii ay recensement la lii ngay gis nii li ngay gis ni lépp ay recensement lan ñii ba léegi kenn bindu leen fenn te tey xaalis bi buñ ko séddoowee ñoom seen wàll duñ ko jot te pourtant ay dawalkatu Jakarta lan nekk fii cees nekk fépp si Sénégal donc côté boobu lañ doon intervenir di nag comme que nag li ñu mën a def en tant que syndicaliste mooy alerter première pas plan B bi mooy nu alerter bu ñu demee nag fi ak jëmi jamono bis yu néew gis ñu benn réaction li ñu war a def dinañ ko def. en tant que syndicaliste. Vieux Sall le porte-parole syndicat autonome des conducteurs Jakarta du Sénégal euh, sama kàddu nag du si bëri parce que sama ñaari euh, njiit yi macha allah euh, wax nañu lépp mais man président Macky Sall laay waxal parce que yàgg ngay liggéey ñu lay waxal li nga xam ne nekkul ci yow lépp li nga xam ne war na la rek yaa ngi koy def mais sa entourage ñoo la jàppalewul tey loo ñàkk wala loo amul tey jii. sa entourage ñoo la liggéeyalul parce que ñun ay ndaw lañ nekk ay syndicalistes nekk fii au euh, région de Thiès di couvrir tamit au niveau national parce que euh, ville de Thiès dong laa wax ville de Thiès rek li fi nekk ci ay Jakarta mën na six mille et quelque kon li fi nekk ville de Thiès nekk six mille et quelque kon région de euh, région nan la mënee nekkee deux mille et poussière kon war nañu xam ne recensement bi tegul ci yoon kon ñaata mille personnes la ñu bàyyi ci ginnaaw ñooñu andi seen i xaalis. lii su amantee képp koo xam ne ñun si accréditation muy waa SADIC muy waa SACGIS amul ci benn branche bu mu deful demul fii au niveau de Thiès kon suñ euh, suñ ne xamuñu yeneen euh, syndicats yi xam xamuñu yeneen association yi kooku dañoo wax lu leen neex loolu dañu wax lu leen neex parce que tey jii mais nit nekk sañ nga tey koo wóolu tey doo bokk ci ñoom parce que ñaari association yi nga xam ne ñoo fi nekk dañ dem dem nañ ba Thiès kenn wóolatu leen dem nañ ba Thiès kenn wóolatu leen parce que yàgg nañoo tëgg. jakarta man di leen tëgg ay ndil di leen wër ndomba di lekk seen xaalis di leen toroxal mais fii cees tey jii mën ngeen def micro trottoir fii cees jakarta yi heure bu ñu amee jafarta euh, jafe-jafe ak police wala leneen leneen mais seen syndicaliste ñooy taxaw arrangé ko lijjanti ko ba mu sotti mais ñoom les présidents association mos ñu cee dox dara mais pourquoi léegi lu ñëw fii ni njëkkati ko tëkk ko tëkk seen loxo ñun syndicaliste ñu bàyyi ñu à côté ñun loolu lañ am daal luñ ci wax lii nag lii alerte la incha allahu rabi parce que mën naa ne fii lu mu dee dee ay dix mille jakarta man ñoo ngi fi yoo xam ne tey jii kenn recensé leen ah léegi nag ñun tey jii suñu lii def nañ ko premier alerte suñ ci amulee benn kii dinañ xool beneen méthode de travail bu ñu jël te bu booba incha allahu rabi su jarañ dem ba ci pale wala feneen ba fa Macky Sall jot ko dina ko jot waaw liñ daal moo ñu am euh, li ñu ci métti ñoo ngi woo nag ñëpp di masawu tamit ñeneen ñi nga xam ne xam nañ ni ñun xeexaluñu ñun suñu bopp. ku lu kuy Jakarta man nañu xeexal amul ma Samba amul ma Demba nga bokk association ñàkk bokk association mais kuel képp kuy Jakarta man rek ñun yoo la ñuy eh, xeexal voilà ñoo xam ne ñun ñi tey jii nii di les syndicalistes amul 100 francs boo xam ne tey jii dugal nañ ko suñu poste baa ñu woo ñu dugg na fi génn fii Thiès nag dégagé nañ liñ ci dégagé ñun nag ñoo ngi toog di xaar ñi nga xam ni róor ñi nga xam ni euh, recensé wuñu leen ñu xool ndax président dina leen du leen taxaw loolu daal moo ci nekkoon kàddu di jaajëfal ñëpp di gërëm tamit waa Thiès Info